asalaamaaleykum mbokk Sénégal ma sakkuwaat waxtaan ak yéen ci fi réew mi tollu ci xeex mbas mi di coronavirus di fàttali ni ci njalbeen ga bi feebar bi nuyoo rekk la gouvernement bi jël matukaay yu doy ngir ñàkk mbas mi te booba ba léegi kanam gu mu wone rekk am nañu taxawaay ba ca war sunu këru fajukaayu kër docteur yi wane nañu seen njàmbaar ak seen xarañ ci ñaari weer yi ñu weesu li koy firnde mooy sedd yi aji wér yi def ci ñoom moo tax ngërëm ñeel na liggéeykatu kër docteur yépp ak ñi yore karange gi maa ngi gërëm kilifa diine yi imaam yi ak ulema yi kilifa jàngu bi ak kilifay aada yi kuréel yi ci réew mi yépp yi taxaw xeex mbas mi taxit ba mbas mi rombul fii mu toll tey ci jamono ñi ci ñàkk seen bakkan ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu xare leen te di leen jaale seeni mbokk bañ yokk seen tiis tax na ba ma digal ministère des affaires étrangères ak ministère bi yor wàllu wér yaram ñu jàppale ñi am ay néew bitim réew ba ñu mën leen a indi denc leen fii ci biir réew mi ci anam yu mën a méngoo ak kaaraange réew mi may sàkku ñu bàyyi di gaafal ñu wopp ndax wopp ji gàcce nekku ci te jombul kenn ndax wane na ko nañu wegante te yërëmante ndax mooy suñu aada koo xeeb rekk mu gis boppam ca njalbeenu wopp gi lañu jëloon dogal yu méngoog sunu aada ba tax defuñu li réew yu bare def maanaam confinement muy toogloo ñépp ci biir kër yi te kenn du génn waaye fexe nañu ba feebar bi lawul na mu bëggoon lawe ci Sénégal xayma bi mu ngi tollu ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn nit yu am jàngoro bi ci bésu tey bii juróom-ñaar téeméer ak fukk ak juróom ci ñoom wér nañu dellu seeni kër fukk ak juróom-ñeent faatu nañu ci jamono ji lu toll ci junni ak téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ngi faju ci kër doktoor juróom-ñaari junni itam ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ñu ngi ci loxo yi kër docteur ñu leen di topp ci ñeent fukki département ak juróom yi ci biir Sénégal daanaka genn wàll gi feebar bi àggu fa ci lima boroom xam-xam yi wax mbas mi mën naa wéy ba njeexatalu nawet bi kon li war mooy gën a takku gën a fagaru méngale sunu nekkin ak sunu dundin ak mbas mi ba du fi am ndam gan gu bañee ñibbi te mënoo mënuloo toxu dangay xool nooy dëkke ak moom loolo waral ma jël dogal yi benn lu ko dalee ci talaata ëllëg incha allah couvre-feu bi dina tàmbalee neuf heures ci guddi ba juróomi waxtu ci fajar ñaar waxtu liggéey yi dinañu tàmbalee neuf heures ci suba ba ñeenti waxtu ci ngoon ñett marché yi danañ leen ubbi juróom benn fan ci ay bés yu nekk di tëj benn fan bu ñu jagleel seenu set setal gox bu ci ne préfet ba dana tànn bés ba muy bésub set setal ba ñeent luuma yi dinañu ko ubbi ci biir département bu ne waaye kenn du génn sa département juróom jàkka yi jumaa yi ak jàngu yi dinañu mën a ubbi ci anam yu méngoo ak ni ñuy xeexee mbas mi ci loolu ministre de l'intérieur ak ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram dinañu ci diisoo ak kilifa diine yi imaam yi ak ulema yi ak waa jàngu bi juróom benn ci lekkool yi classe yi def examen di CM2 troisième ak terminal danañu ubbiwaat ñaari fan ci weeru juin ñi ci des danañu wéy di leen jàngal ci télé yi ci rajo yi ak xarala yi maanaam toog sa kër jàng fépp fu mu waree nguur gi dina fa teg kaaraange ngir li war a ànd ak dogal yu bees yii ñu mën koo sàmm raxasu bi dandante bi ak mask takk mask ak lëpp luy tënk jàngoro ji ba du law mbokk senegal li mooy mottali dogal yu bees yi ñu jël ndax kat bu ñu ko deful ba jàngoro ji jógaat ci anam yu ëpp loxo ñaanuñu ko yàlla su boobaa ñu jël ay dogal yu gën a tar yi fi nekkoon ngir mën a aar askan wi kenn réeréewul mbir ne bu ñu taxawee takku ak sunu xam-xam suñuy ñaan ñu defar ay gel ak ci saabu ngir raxasu walla raxas loxo yi ñi ñaw ay masque ñi fent ay xarala dinañu mujj daan corona bi ma bëggoon bala may daaneel sama kàddu ma santaat te gërëmaat waa réew mi rawatina kilifa diine yi ak yu aada yi ci jàpp bi ñu jàpp ca njalbeen ga ba tey moo tax ma leen di ñaanaat ñu taxawaat ngir dogal yu bees yi mën a wéy te du ànd ak lor ci loolu it maa ngi gërëmaat jàngalekat yi élèves yi ak seeni wayjur boroom këru kaay yi ak liggéeykat yi ak syndicat yi maa ngi leen di ñaanal gudd